proche ici qui s'appelle Pikin boo et tu entres à Guinaw Euh, ku 2012 le président Abdoulaye Wade di Nibi, Karim Wade a lu mu fi ci infrastructure pavage ba non nous Nous, la ko roñee yóbbu ko pavage bi dafa du Goubir biir monsieur le ministre comme nous la euh, wax deug yalla eh, ñu bëggoon rek ginnaw raay aussi soriwul mi ngi nii entrée bi moy entrée poste Thiaroye Thiaroye hôpitalu camp bi loolu matul sax 2 kilomètres te kenn du ko defar dañ leena faté, nous vivons dans la totalité de de de de noir nous vivons amuñu tali amuñu yoon amuñu dara lolu nak <clears throat> dina ci jaare rek wax ni amna ko ko xam lool di ku baax te monsieur le ministre nak am nga collaborateur bu baax muy le ministre Abdou Ndéné Sall monsieur le ministre ministre kat mën naa jékki-jékki ndekete toog ci ginnaaw donc nañu koy nañu koy bàyyi xel di jàppale ñépp coow bi mu amee ginnaaw raay ci teer bi lu ngeen tabax ñu toj je l'ai appelé mu bàyyi li muy def yépp ñëw dalal xale yi ba xale yi dal donc loolu boo toogee dinaa la ko wax ndax nit ku baax la di wax ni kooku ñuy wax met Moussa Diop moom it na gën a góor góorgóorlu kaar yi amul diggante Pikine ak Kër Massar na yokk kaar yi ndax moom fu mu toog rek nee na moom dàq liggéey ci àdduna donc na gën a góor góorgóorlu ci li muy def parce que nit boo koy jugé da nga koy xam moom xam na li may wax deful dara dégg waaw monsieur le ministre sama doléance xam naa ni jël nga ko en compte mais comme sama askan dañu may seetaan. te sa bi nga dendal di le ministre Abdoulaye Daouda Diallo moko ko en considération ci budget te defaru ko euh, légui ma bëggoon diggante Dakar ngoñ ak Njongé wala diggante Taaleen Gay ak PAM sama dëkk sorentewul monsieur le ministre ñun tamit fofu ci Sénégal lañ bok man mi gis nga ma femme la sant dëkk ba PAM la tudd monsieur le ministre tronçon wu 3 kilomètres la comme ni nga ko waxé nous aussi nous devons rentrer dans l'histoire que nous ne sommes pas là pour toog rek jàpp suñu monsieur le ministre que ngeen fi infrastructure yéna a ngi ci liggéey monsieur le ministre ablaye Daouda Diallo en a fait autant et vous vous procédez de la même manière que le ministre ablaye Daouda Diallo qui avait procédé de la même manière que le grand ministre Karim wad moi je pense que yaa ngi liggéey ñu ngi lay ñaanal yalla ndax wax dëgg yalla suñu xamanté du tay yagna té xam nga limay wax mais nak ma ngi bëgg tamit profiter ci occasion bi di la wax ni monsieur le ministre le coût du transport est très élevé tu terminé. Donc, revoir parce que faut fa Pikine Tëngéej 3000 francs kenn du la ko jëlal yokki auto rek nga fi def ci tali bi wàññil di la wax ni aussi le BRT nekkul pour pour ñun pour waa Géejawaay la donc je pense que damay revenir ci met Moussa Diop wax ko na gëna gor gorlu dugal ay car yu gëna a dans la banlieue parce que c'est très important tay bu ñuy xool banlieue proche bi nga xamantene mom lañ am muy Pikine mo gëna forger Dakar parce que tout ce qui était à Dakar te sonn nara sen kër yi gëna a cher affité bi cher euh, luwaas bi cher ñooñu dañoo randu siwaat ñëw diggante pikin ba Kër Massar et vous avez fait de très grandes villes nit ñi comme li Abdoulaye Wade waxoon rek euh, Sénégal dañu mën a tabax ay kër yu rafet te léegi ñu ngi koy tabax ci booru Tëngéej ak yooyu donc ngeen yokkaat encore une nouvelle fois les cars de transport dem Dakar dem dikk ou Sénégal dem dikk comme vous voulez euh, maa ngi lay sant di la di la gërëm di la wax ni wax dëgg yàlla euh, loolu am na solo pavage bi daal bu ñu sañoon mu mu dëkk si euh, biir ginnaaw raay euh, ñu waxaat la rek ni la Dakar du mom rek moy dëkk jallal ci bir réew mi liggéey parce que loolu moo tax ñu teg la fi ñu la fa teg ñoo ngi lay gërëm di la sant je vous remercie monsieur le président. merci bien.